George Bush Boy Jaxaaw Boy Jaxaaw moo ñëwoon ginnaaw George Bush la ñu jàkkaar lool arbitre bi laaj na George Bush laaj na Boy Jaxaaw arbitre bi sifflé na George Bush Boy ñoo ngay demee wet ñoo ngay demee wet ñoom ñaar George Bush Boy Jaxaaw Jaxaaw George Bush Boy Diakhao George Bush tibb na suuf George Bush te defe naa ne président Amérique la woon Boy Diakhao moo nga jógee Thiès jógee Diakhao Sine ñëw war a daje ak George Bush George Bush da ngaa bëgg a génn wala boo génnee jël avertissement George Bush Boy Diakhao George Bush Boy Jaxaaw George Bush Boy Jaxaaw George Bush Boy Jaxaaw George Bush Boy Jaxaw arbitre bi la waat na Boy Jaxaw George Bush ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Boy Jaxaaw George Bush Boy Jaxaaw George Bush ñu ngi lewaatoo Boy Jaxaaw moo ñëwoon ginnaaw George Bush lañ jàkkaar lool Boy Jaxaaw George Bush Boy Diakha George Bush dafa mel ni dañoo bëgg a xeex Boy Diakha daa bëgg a dem wala lu mu bëgg a def Boy Diakha cokkaas na léegi Boy Diakha George Bush Boy Diakha waaw ñoo ngay xeex ñaar Boy Jaxaar George Bush nañu doon ko mu daanu Boy Jaxaar door na mu daanu Boy Jaxaar door na George Bush mu daanu oh xale mu daanu George Bush na kaay leen Boy Jaxaar door mu daanu lan lay wax moom kenn xamu ko.